asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi sant mbooloo mi ci jiital sëriñ Xaadim mi nga xam ne moo ànd ak ñoom ñëwoon ci ziar bi di ziar sëriñ Jili sëriñ sa Falilu muy loo xam ne lu yàgg la woon ca bàyyi ba ci ñoom ñu koy doxal te booba léegi ba ñu noppee gis si waajur yu tedd ya ñoom ñu jokk ko léegi di ko doxal na mu ware daanaka duñu am lu ñu si teg loolu nag li li ñu koy def mooy sant yàlla rek san sante ko yàlla bu baax euh, ndax euh, sant ko mag ña tamit ndax ñoom ñoo ñoo leen teg ci yoon jàngaleen ak taalibe ba ñu xam fi ñu fi ñu teg seen tànk ñu doog a dem bàyyi leen fi kon nag loolu ñu koy sant yàlla di leen sant bu baax di sant si Xaadim bu baax ndax lépp loo xamante ne nii jëm na ci moom. ci li jóge na ci kër gi jëm ci moom ci ndigal ak ci liggéey dana ci def ba def ci lu lu lu kawe njox li ñu bëgg ci kër sëriñ bi ba ñu am ngërëmul sëriñ bi ci barkeb sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf bismillaahi rahmaani waaw tey nag am nañ mbégte mu rëy ñëw fii ci suñu kër sëriñ eh, sëriñ eh, Jili Mbàkke moom sëriñ Modou Moustapha Mbàkke Falelu yàlla dogal suñuy wéyjur eh, nekkoon ci moom ñu nit yàlla euh, dimbali ñu ba ñu topp tànk yooyu di ci jéem a roy donte ne mënuñu ko jéem nag euh, lépp loo xam ne war na taalibe rek ñu jéem di euh, di di ko jéem a sàkku ci sëñ bi mooy suñu teewaay fii di am yéene rek lépp loo xam ne ni suñu wajur wa daan na ko fi def xam nañ ne mënuñoo mënuñu koo dab waaye ñu jéem a def lu ni mel bi ñu ñëwee it wax dëgg sëñ bi. am na kum ñu booleel muy sëñ Moutala Mbacke mi nga xam ne lépp loo xam ne dama koy def ci kër gi moom laay ci mooy mooy bunt bi mooy sama bunt ci kër gi ci moom laay jaar ñu di ko sant bu baax di sant sëñ Jili bu baax. am ay ndigal yoo xam ne joxoon nañu ko ci wàllu liggéey bi ñu doon ànd ak mbokk taalibe yi doon ko indi si. kay di sant bu baax nag sëñ Moutala Mbacke jërëjëf. moom bu kilifaam waxee waratu la wax waaye danañu féddali coloré ndax moom sëñ xaadim mi Euh, way juram sëriñ Modou juuf euh, moom xaadim mi taxaw tey jii way juróom bu góor bu ñuy wax sëriñ du juuf mooy sunu sëriñ ñun moo ñu tarbiyu lii ñu def nii tey jii mu ñëw ci ci ki nga xam ne moom mooy doomi sëriñ Modou Bousso Mbacké dañ ko daan def ñun ànd ak way juróom ñëw ci sëriñ Modou Moustapha Mbacké Falilou kon nag bu ñu ànd doomam mu topp yooyu tànk ñëw ba fii ñu ànd moom kon ñu def lu dul sant sant bi nag ñu ngi koy jiital ci ci Serigne Djily mi nga xam ne mooy wasilaam Serigne mi mi nga xam ne nag mooy jëwrinam mi nga xam ne moom la booleeg suñu sang bii di eh, Serigne Khadim Diouf yal na yàlla wéral ko wéral leen njaboot gi nga xam ne ñoom la ñu àndal muy Serigne Sey mii nag ak si Ibrahima Dieng mi ak Mame Mbaye Badiane jàngkatu xasaayit eh, doomi Maxet Badiane Euh, ñoom tamit yal na leen fi yàlla bàyyi euh, ba lépp loo xam ne yéene nañ ko ci kër sëñ bi yàlla motali ko ci jàmm ak salaam kon nag lii rek lañ ci doon sànni euh, ngeen jéggal ñu bu yàqoo ngeen xam ne motali doomu aadama la bu jubee nag ngeen xam ne yàllaa ñu ci dimbali. lépp loo xamante ne ji bul xaar sax sëñ bi sas la. Mm-hmm. waaw murit mm-hmm. ñaar du xaar sëñ bi sas ko mm-hmm. loolu daal moom mooy ñaan gi ñaan nag sëñ bi yàgg fi la muy seen jiili ak sunu sunu sunu xarit bii tamit di sunu sëriñ <laughs> sam borom gën leen boole daal bak sëñ bi defal nañu ñaan fi mu toll nii moom daana ci yoon sax dam naa na waaye waaw dëgg la loolu sëñ bi xam naa danañ gën a xamante bu baax incha allah wóor na nekk la nekk incha allah waaw ñëw fi incha allah ak seen ak ñu gën a incha allah waaw sëñ bi defaatal defaatal ñaan